dimanche la woon ci Touba Sam Serigne Aliou di chef religieux moo doon amal cant annuel gi mu jagleel sant Serigne Touba ci diggante gox yi di Touba Sam ak Madiana xew-xew bu rëy bii nag gis nañu ni mbooloo mu takku teewoon nañ fa bàyyi ko ci ay daayira ñëw wuy ci kilifa diine yi kilifa aada yi maanaam daal ci gàttal événement bi bokk na ci agenda yi nga xamante ni ñu ngi koy xaar ci gox bi nekk ci Touba. Serigne Aliou Fall mi ñu ràññee mu doon un chef religieux amit mbooloo loolu waaye tamit am jàmm ak waa gox bi mu dëkkal moom de bisam bii gis nañu nii occasion la woon ngir ñëpp mën a tase yi ñu nemmeeku ni parrain bi doonoon Serigne Fallou Dieng di soldaaru maam Cheikh Ibrahima Fall am si taxawaay bu mat sëkk waaye tamit Serigne Sidi yi ak Serigne Lamine Mbacke Abdoul Aziz Serigne Bassirou Mbacke moom tamit te woon na fa ak yenn kilifa diine waaye tamit xalifaam bi nekkit xalifa Serigne Adama Fall te wuyoo si Serigne Abdoulahad Fall ba tey bokkoon na si invité yi marraine bi di Soxna Assu Mbacke moom Serigne Abdoul amoon délégation bu am solo bu ko fa woon waaye tamit xarit yi am di jàmm yi ku si mel ni Serigne El Hadj Silla si sàmm xew-xew bi ñu amal ko si programme bu ci ay ñëpp ñëw dugg ci bâche bi ànd ak tey ak tekk te yiw loolu déglu nag waxtaan yi Serigne Aliou Fall bi mu jëlee kàddu jëmale na ko si ponk yi am solo. nee bari na kilifa yoo xam ne mi ngi ñoom di ànd ak ñoom nee na koy faral di waxee. nee daal ni ñuy tudde yoonu murit muy ñi xam ne ñoo ci gën a tëdd te seen maam sanc ko muy mbàkke mbàkke yi am ñi sant Sylla ak Jaxate ak Fall nee na daal bu doon football nee na daal moom lay wax ni moom Alioune Badara mën na terrain bi nee daal xam na li ci xew lépp waaye nag moom mii ni ko waxee léegi rek amul complexe ci lenn ndax koo xam ni bu dee waajur nee na fu ko tudd ñëpp xam ko fu ko tudd fu mu ko xamee nee daal boo ko tuddee rek dañ lay daal di jox wàccuwaay woo xam ne bokkut ak woon la joxoon dañ lay doog a waaye moom nee na forsam dooleem tiitaram te yaakaaram nee lépp daal alxuraan rek la ci la tàmbalee ci te lépp nag Baye Adama Fall mu baax ma yàlla yàlla yokk leeram boo ko def ci moom nee na nag mu teel a dugg ci moom lool nee nag mu teel cee man lu ne teel cee xam lu bëree bëri nag bi muy am juróom-ñetti at tegle na ay fani fan wala ay weer weer wala sax ay at yu bëree bëree fajar bu jot quatre heures lay yeewu tari xaaju kaamil balaa maa ne mu jëm dëgg nee na moom daal alxuraan ni mu ko mokkale woon nee na daal moom jël kaasum ndox bii naan ko rek a yem ci moom. nee na di fi waajuram sëriñ Adama Fall mu baax ma jugee fukki rek la am. waaye nag booba sëriñ ji nag leen bokk na ci ëmmaam mooy fexe ba jubal ndaw yi gëmloo leen seen bopp ñu mën a liggéey seen réew defar seen gox teg leen ci yoonu siraatu mustaqim jàpp na ni moom ndaw gi mu doon loole lay xirtal yi nga xamante ni ñooy ndaw yi bëgg lu baax ne kat objectif am mooy jàngaleeb sëriñ Touba maam Cheikh Ibrahima Fall xirtal ndaw yi ci liggéey ba naataange mën a am sëriñ Aliou Fall ni yi la xeetu ndaje doon na occasion ngir su fekkente ni ñu ngi lay déglu lay bàyyi xel nga mën a jàllale ay message yu important ba nit ñi mën koo jël utiliser ko suñ demee seen gox wala seen kër. nee na Serigne Abdou Lahad Fall nee na makaarimal axlaaq alhamdulilahi rabbil alamin nee na loolu daal saf la ci ñoom nee na bul ko woon sax danañ ko dem ngir jël ko am nee na waaye daal li xew ci muy na ko mbokk mi waxee rek ba tey am ñu baree ba ni mu ko déggee. nee na lépp di ay xeeti dóor ak lu bare bare lu ci aju nee na daal moom ñu ñëw ko dëgg la nee na moom li mu am muy alxuraan doy na ko yow sëriñ Assane nee na wax ji nga wax da ca yëg boppam de da ca yëg boppam bu baax baax a baax a baax ndax nee na moom foofu na waxe fa la ne nee na nag boppam jëlul boppam amul jël boobu sax nee na bu ko defee nit ñi kenn mënu leen na nax nit ñi ñëpp a xam li xew nee na waaye moom amul googu jot nee na njabootu sëñ Adama Fall boo dee xool moo ci gën a nekk xale nee na ñi ci gën a nekk xale ci la bokk waaye nag ñëpp a ko jox cër nee na cër boobu baax rek a tax ñu jox la ko dëgg la nee na waaye du sag yaru du sag yiw du sag daraja du sag dara loolu rek a tax ñu jox la ko waaye nee day cant Serigne Touba gii nag daje nañ ko si ay jàng yu am solo noonee lañ wéyale programme bi sëñ bi ñaanal ñëpp dina waajal édition bi nga xamante ni mooy édition deux mille dix-neuf fii si diggante Touba Sam ak Madiana.